sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci plateau màggal gi tey ñu tee fii ak suñu ñaari invité ki féete suñu càmmoñ di Bada Diop ki féete suñu ndeyjoor di euh, Sayar Cissé kon dañuy daal di delloo kàddu gi euh, Bada Diop mu daal di nuyoo présenté wu. asalaamaaleykum. rahmatulahi taala wa barakaatuhu soxna Daba ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziar maa ngi nuyu baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo ni seetaan ñëpp. Euh, ci présentation bi Bada Diop doon membre wilaya section bu Touba euh, di responsable communication waaye di premier adjoint bu communication secrétariat wilaya jeune national jërëjëf. ju dox mu daal di euh, wu moom tamit. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo ñi seetaan fii ak ñi seetaan bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar. waaye di nuyu soxna Daba mi nga xam ne moo ñu dalal ak képp koo xamante ne ak suñu mbokk mi nga xam ne moom lañ jàkkaarlool ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar euh, di leen wax ne mbokk mi toog mooy Sader Cissé yor communication bu section Gambie ñëwoon tey ci màggal gi. waaw kon ñu déggandoo euh, bi nga xamante ne si ni mooy euh, euh, nuyoo bi am solo bi nga xamante ne si nii def nañ ko dañuy daal di jiital suñuy question ci yow di nga xamante ne si mooy Bada Diop ñu laaj ko rek mu leeralal ñu li nga xamante ne si moo di màggal gi ndax ñu bëgg a xam rek ban année la ko Cheikh Moussa Modou Moustapha woote. jërëjëf soxna Daba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci laaj bu am solo boobu. ndax euh, day baax loolu ñuy fàttali bu baax ñi nga xam ne xëy na fekkewuñu woon démb ngir ñu mën a xam ngir ñu mën a gën a taxaw ci euh, li fi mag ñi bay bu ñuy tontu rek comme ni nga ko laaje euh, Sirina Muharram bis la boo xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko njëkk a woote li nga laaj nag mooy ban année lan jàpp ne moom la ko njëkk a woote mën nañoo jàpp ne sëriñ bi 27 la fi jóge waaye 27 28 vingt neuf trente ba trente six ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha njëkk a woote bis bi nga xam ne mooy bisu màggalu Xisrina Muharram euh, di bis bi nga xam ne moo dëppoo ak ñibbisi ak sëriñ bi ñibbisi sëriñ bi fii ci pakkam bu seel bi nga xam ne mooy Touba euh, te sëriñ bi digaloon ko mu di ko dundal ci anam nga mu ko daan dundal. waaw loolu daal lañ la mën a leeral ci loolu nga laaj ndax xëy na xataa waxtu wi ak comme nan nga ko waxee jërëjëf. Euh, bu mu mel ne dégg nañu sabablu woote bi muy di 1936 la ko njëkk a woote ñu bëggoon a xam rek lan moo waraloon woote bi sababu woote bi. waaw jërëjëf lan moo waraloon woote bi loolu buñ delloo tuuti ci gannaaw mm, ñaare booy déglu ku mel ne Serigne Ahmadou Ndiaye da ci leeral yu am solo. muy fàttali ne bis bi nga xamee ne waxtu wam ko war a woote jot na euh, dafa woolu Cheikh Massamba Mbacké di jur ci moom ngir ne ko euh, ndigal la ma sëriñ bi joxoon tey la jot waaw ndigal la ma sëriñ bi joxoon jot na tey euh, nee na ma ngi woolu fekk mu génnoon mu woolu ko ñu dabe ji ko ca boori Louga yaakaar naa liñ koy dégg bari na Euh, ba nga xamé ne ñëw na mu wan ko mbind mo xamné ngir teunk rek ngir xeyna xataay waxtu wi mu wan ko mbind mo xamné ku bax ki moko bindoon di ca jox ndigalal taxawu bis bi di asirina muharram mu wan ko ko serigne Masamba xol mbind mi jël ko raay ko ci abjeem euh ne ko li de mbindum ku bax la mu xamal ko ne ko euh, nit nek lu muy sédé daf koy fekke te bama ko bama ko ku bax di sante fekke won nga ko kon motax mu wolu ko euh, wan ko serigne Masamba serigne Masamba xol ko xamne mbindum serigne bi la mu diko ca digal ne bis bi bu delu sété na nga ma dajalé sama mbolo ñu dundalé ko ci ni ak ni ndax bis la bo xamne kon mu melni ni su sëñ bi mo diglé won ñu ko 1930 dedet lolu mom, mën na ne euh xayna euh, serigne bi mom moko ko programmé noonu euh, mënu maa ne xëy serigne bi moko ko 1936 waye hasrina na muharram ji mom mooy date bi nga xam ne moom la wooxoon ne nan ko ci woote. waaw loolu daal laa la mën a leeral euh, li tax nag mu bàyyi ba 36 mu woote ko moom xëy na loolu moom duma ci dugg ndax sama xam-xam eggu ca waaye daal sëriñ bi moo ko digaloon ne ko assuré ne muharram bu jotee na nga ma wooteel ci sama dëkk bii di Touba ñu daje fi mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci moom. waaw kon bu ñu dégloo ci waxtaan bi nga xamante ni si moom la jëlee ci Bada moo di euh, euh, sëñ Cheikh Modou Moustapha dafa jëfee ndigal li nga xamante ni si moom la ko waajur bi bàyyi la woon moo di saa su bis bi yegsetee nawa dajaleel mbooloo mi ngir ñu màggal ko léegi dañuy daal di dem ci nga ki nga xamante ni si moo féete suñu ndeyjoor euh, di Sédé Cissé mu wax ñu rek euh, ginnaaw bi nga xamante ni si ni euh, fédération bi joxe na ndigal mu wàccee ci secrétariat bi nan la ko waa euh, Gàmbi waajale ba tey ñu mën a am mbooloo bi ne xamee ne ndigal lii bureau fédéral woote nañ joxe ndigal lii di ko waxtaanee gannaaw bi ñu ko waxtaanee exposition bi nga xam dañ koo jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall boole nañ ko ci nga xam ne njabootu Cheikh Ibra ga nekk ñëpp bokkoon nañ ci ñu doon béggee li nga xam ne mooy jataay bi waaye pour war la ne la waxtaan yi am na solo mboolem njaboot gi at mu jot daan nañ mobiliser wu ñëw waaye ren li ñëw ren ci mbooloo mu a ñëw li ko waral mooy gannaaw bi ñu joxe xibaar yi yëgle ko wane dayom bis bi ak maanaam guddi tey gi ni mu amee solo Euh, sànq bi may jógee ci yéen fii ci sand bi damaa fekk ñeenti kaar yu jógee Gàmbi ñëw li ko waral mooy dafa am addee ju ñuy jébbale at mu jot xalifa général bi fi nekk waaye dañ ne dañuy ñëw màggal si maanaam kaar bu nekk dina jël ñaar fukki nit ak juróom mooy téeméeri nit yoo xam ne ña nga dalu section Gàmbi fi ndool nii loolu nag li tax mu mën a am mooy xibaar yañ leen jox ak niñ leen yëgalee bis bi kon Soxna Daba bu fekkee ne amul yeneen laaj loolu bokk na ci li nga gën a xam ne jox nañ ko ren bis bi boo bëggee ma détaillé li tamit mboolem rajo yi fa dem heure fa dem lañ fa waxtaanee boo bëggee mën naam ndax distance su Touba ak euh, Gambie soriwaay bi doo leen dara. waaw distance bi sori ndax li ko waral mooy ñi ngi déparé Gambie minuit et quart ñi ngi agsi fi 6 heures xam nga kon distance bu sori na mu mel ni bi ñuy départ di ñëw euh, am nañ biis boo xam ne moom lañ yeb ba mu fees muy 70 personnes waaye bi ñu yegsee ba am tey ci ngoon la fédération Serigne Touba ba fa nekk. fédération Serigne Touba ba fa nekk nga xam ne daayira yu bëri ñoo ci aju mën naa wax ne ñeent fukki daayira ak juróom ñoom yebal nañ délégation bu am solo muy ñeenti kaar ñeenti kaar yooyu ñëw nañ màggal kon mel na ni distance bi sori na waaye mbooloo mi jaral na leen pour mën a ñëw màggal si. kon dégg ngeen li eh, jawriñ ne sa si mu mel ne guddi gi na leen lu ëpp loolu. duñ ko ñëkke déggé ci kàddu yi nga xamanteni ci si joggé ci jawlin Bara Diop léral nañ ni guddi adam yi nga xamanteni ci si ci lako cheikh Cheikh Moustapha njëkk a woté ak li tax mu mu ko buñu ñu ci suñu uh, jor dégg nañ uh, jëwlin Saya Cissé li nga xamanteni ci si moom wajalé ci communication nga xam ni mbolo mu toll ni pour nga indi ko foto nga woté ndax communication bi teeloon naa ñëw waaw manam bimu mu desee benn lañ commencé def ay jataay yoo xam ne dañ koo jëmale ci rajo yi waaye bi loolu jàllee def nañ suñuy publicité dugal ko ci groupe whatsapp yi dugal nañ koy ci li nga xam ne mooy sur internet bi waaye tamit euh, dugal nañ ko ci facebook bi nga xam ne adduna si ñu bari ñu ngi seetaan loolu mooy communiqué yoo xamante ne ñun ñoo euh, section bi ñoo ko bind daf ko woyis jàllale ko mu mel ni mën naa wax ne diiru weer boo xam ne lépp ñi ngi waxtaani màggal gi ci ay plateau ak ay interview yu ñuy def ci biir liggéey bi ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu koy def ak ñoom kon bokk na ci li nga xam ne. magal gi yag nañ ko wajj gannaaw bu ndigal li ñëwé rek lañ commencé wajj kon jërëjëf ñoo ko kon mu melni section Gambie wajjal nañ ko lu toll ci weer ñu ba ñu ñu waaj màggal gi légui dañuy daal di dem and ak jëwriñ bari Diop mu jéxalé rek internet gi nga xamanteni ci si am na waaw jërëjëf soxna Daba ñi ngi lay jaajëfal bu baaxa baax bu ñuy dellu si rek ci ndariñal guddigu gi euh, solo am solo go xamne Euh, buñ ko doon wax xëy na temps bi du fi xaj ndax bala ñoo xool njariñ li dañuy xool niñ ko wootee ndax Cheikh Amadou Moustapha bi mu ko wootee daf ko woote ci alxuraan ak sunna mooy njàngum njàngum xasida askar ak ay salaatu ala ak ñi am xam-xam sax di laa biire ñi nga xam ne ñoo leen ëpp xam-xam ñi man di dimbale ñi ñi nu ndax loolu rek buñ ko xoolee dañuy gis ni njariñ kese la kon moo tax njariñ yi nga xam ne moom la bis bi làmbool euh, mënee su koo xam te sëriñ bi waxoon na ne euh, bis bi nga xamee ne moom lañu ñu indi woon ku baax ki fii ci dëkk bi ña ko gunge woon ñëpp bisu tey bii dañuy dellu si ànd ak ñun guddi gi kon loolu njariñ la loo xam ne ëpp naa wuute na ko Cheikh Moustapha daan waxe yàlla sakkul ngàntalu war a tax nit fanaan fanaan si Touba guddi mu muharram muy guddi gi kon njariñ yi moom bari na loolu am na solo waaye nag ku dundal ci ni ko sëriñ bi bëggee woon moo tax ñuy wax mooy ci alxuraan ak sunna ak diini islam. nañ dalaloon ci plateau yi ci ci Bara Diop mi ñu doon leeral mi nga xamante ni si ni euh, ana bi ko sëñ bi doon commencé màggal tolluwaay bi am jamono jii nii di ja defal tamit euh, jëwriñ Sadia Cissé di leeral li nga xamante ni si ni indi ci guddi gi ni moo di importance bi nga xamante ni si ni am na ko waaye li ciy gën a yéeme moo di dafa ku ci fanaan si da set wécc ci ay bakkaar kon daal ñu ñaan rek. màggal gi lépp luñ ci def yàlla na suñu ko yom borom nangul ñu ko euh, te nangul ko mboole mu taalibe boo xamante ni si tey financé na Touba ñu ngi leen di jaajëfal ba baax a baax ba yeneen i plateau incha allah. sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yawon ya dawo te ya dawa eh, te eh, mustawa